bu ñu def pour vingt personnes nga def ci quarante personnes mais moteur bi poids bi mu war a bi mu war a supporter mais aussi moom laa yor il faut pas ñu jël nit ñi pour ay ay ay nit yu dul réfléchir oto yéen amu leen droit encore moins état bi di bind ay ay ay ak wala lu mu mënti nekk yoo xam ne daf leen di permettre ngeen jël une voiture euh, wala benn car de transport multiplier ko par deux ça c'est pas à vous de faire ça loolu yëpp nit yi la nañ waxante dëgg loolu benn la bu njëkk bi mooy aujourd'hui bu ñu dindee cette place yëpp yi nekk ci ci ci dëkk bi yëpp nit ñi dañu sonn te dañu war dem seen dëkk yi dañu war a tukki il faut ñu am lu ñu am lu ñu fa teg parce que loolu beneen cas la donc c'est pas une mesure boo xam ne dañ ko war a jël daar daar pour régler un problème ponctuel il faut ñuy anticiper c'est des projets yoo xam ne pour man c'est des projet yoo xam ne ci ay at lañ koy dérouler pour que boo teggee lii boo dindee lii nga def fa dara mais aujourd'hui man j'aimerais bien savoir Euh, bu ñu dindee cette place yi. lan lan lañ fay def. à la place qu'est-ce qu'on parce que euh, ñun ñii di toog ci télé yi di wax yaa ñu si gën a bëri yàlla sa gën na la nga yor sa oto bu confortable mais majeure partie sénégalais yi seen problème mooy que jógee ci benn point A dem ci point B. te pour dem ci point A il faut nga am benn moyen de transport léegi état bu dindee cette place yi il faut que ñu teg leneen donc fu état waxee fii ak 3 mois war nañu wax que ni fii ak mois. lii la ñuy proposé muy mesure boo xam ne dina accompagner nit yi ba ñuy am beneen tollu parce que ça ne sert à rien aussi nga dindi fi oto yépp nit ñi amuñu fu ñu jëm ci crées un autre problème donc je pense que c'est un c'est un gros projet lii am ba am ci affaire transport bi mooy avant ñuy incriminer chauffeurs yi wala dara seen oto yi warul daw di jóge ci dëkk di dem ci dëkk mm. loolu la ñu war a njëkk a régler alors